caaro euh, Thiaroye euh, sur euh, mer en une année d'exercice ndax vous arrivez à faire li nga xam ne bëgg nga ko réellement. waaw damay wax rek dama lay wax li nga xamante ni mag yi Thiaroye loolu la ñuy wax. li ñu doon wayal Abdoulaye Wade góor gi yéex nañ see jot Idriss gos gos bi yéex nañ see jot. <laughs> parce que yàlla dafa def ñu ñëw euh, à Thiaroye-sur-Mer remplacer un pouvoir. Mm-hmm. bu def euh, vingt ans. mais qui se cherchait et je dois dire bëgguma di wax ci gestion bi ma fa fekk. Mm-hmm. mais quand je suis arrivé à la mairie je n'ai même pas trouvé une administration. Mm-hmm. il y avait pilotage à vue la laa fa fekk. li ma fekk ci maire bi amul benn instance en cours boo xamante ni fekk naa ko ci maire bi lépp li may def aujourd'hui ñun ñoo ko initié ak équipe bi nga xamante ni moom lañ am donc on est parvenu aujourd'hui à redresser cette municipalité am na ku may wax démb mu ne ma euh, man d'habitude su may romb euh, mairie yi dama doon gis euh, agent yi dañuy toog ci garab gi di naan attaaya loolu amatu fa parce que dama fekk euh, ay agent yu bëri ma fekk ay bureau yoo xam ne dañ ko tëj mais bi ma defaraatee sama administration je me suis rendu compte nga xajuñ fi dama tijji beneen annexe mhm. pour dire que aujourd'hui on est en train de travailler dama dem campagne si benn vision bâtir un Thiaroye viable compétitif et attractif ma def ko sur trois axes aujourd'hui bi ñu defee sunu bilan on s'est dit qu'on a fait un très grand pas en avant d'abord euh, je le dis li ma commencé mooy si biir kër gi Euh, revaloriser la situation de mes travailleurs Mamadou je suis trouvé euh, je suis venu j'ai trouvé ay agents yoo xam ne ils ont fait pratiquement dix ans du ñu am sax le SMIC hmm? ay leen di fay ay trente mille moi je les ai revalorisés j'ai trouvé que mes agents amuñu couverture. est-ce que attan nga ko aussi. non parce que mairie on sait amuñu xaalis. mairie amuñu xaalis mais tamit Mamadou moi je suis humain. Mm -hmm. je suis socialiste. moi je dis que ne la valeur de l'individu liggéey rek moom moo wóor. Mhm. nit buy liggéey da koy fay ak xam. Sénégal tolluwul fu nit di liggéey ba weer dee ñu lay fay trente mille. man duma ko def mhm. beneen bi mooy bi ma ñëwee tamit di ko def. dama dama j'ai vu que ne y avait beaucoup de fuites de recettes à Thiaroye loolu yëpp dama ko delloo si woon aujourd'hui moi je pense que ne on a trouvé un budget de six cinq cent quatre-vingt-quatorze ou je ne sais pas mm-hmm. ñun aujourd'hui on frôle le milliard mm-hmm. pour diir que ne on a fait des efforts dans ce domaine beneen bi sur le plan social euh, dañu gis euh, les imams là tabaski daraan jot ay euh, quelques imams cinq huit imams lañ doon jëndal xar tey aujourd'hui tous les imams dañ leen jëndal xar on a fait de telle sorte que ni assistance sociale bi ñuy joxe ci tabaski ci korité population bi dañu koy yokk dañuy joxe jàppale nit ñi sur le plan de l'éducation lañ doon joxe ci fourniture aujourd'hui dañ ko ful on a revalorisé la subvention des ASC la subvention de l'avenir aujourd'hui on s'inscrit dans une perspective d'élargir cette subvention pour yeneen discipline yi mën ci am parce que aujourd'hui ñun loolu la ñu gëm euh, on est venu Thiaroye dafa am déficit infrastructurel moi je ne peux comprendre une commune boo xamante ni 96 ba léegi la les infrastructures sociaux de base amu fa moi je me suis dit qu'au début de mon mandat il faut que ma dépasser ces questions ma fekk fa état civil boo xamante ni euh, bu ñu yeexoon sax mu màpp dama ko daaneel maa ngi koy tabax j'ai lancé un marché pour construire un centre d'état civil secondaire je suis parvenu à euh, faire la réflexion de l'école Mamoussegna et je salue au passage la dynamique bi nga xamante ni créé nañ ko population yi fekk ñu si aujourd'hui des euh, élèves des anciens élèves sont venus nous rejoindre ensemble ñu réfectionner école boobu de l'autre côté école de ya a un mouvement qui s'appelle Gaal gi et je salue de passage Seybatou Diop bi nga xamante ni moo ko jiite ils son ils ont complètement réfectionné l'école ñun aujourd'hui avec euh, au Auchan on a on est en train de réfectionner le centre de santé le poste de santé de Thiaroye Azur avec Auchan on a réfectionné une frange de euh, la voirie bi nga xamante ni moom mooy dugg ci commune bi cette année-ci je suis en train de lancer li nga xamante ni moom mooy la réhabilitation du centre socio-culturel lancé naa marché bi donc dañ koy exécuter je j'ai lancé également un marché pour réfectionner un peu le marché de Thiaroye Azur donc c'est un ensemble de projets yoo xam ne mënul dëkk ñu ngi koy def. mais ñi ngeen ko seqal est-ce qu'il vous laisse faire est-ce que amu leen ay bâton dans les roues comme ni koy souvent maire de l'opposition yi di Euh, de jeexal woo ça c'est un raisonnement ah. <laughs> donc je dis que ne première année bi j'ai réussi les premières années affaire faire ça la deuxième année je vais li nga xamante ni mooy le cadre de vie mhm. dama bëgg suñu génnee année bi caaro yi ma def ko pavage ça rebondit si question bi nga xamante ni moom ngay wax parce que daaw dama ñëw rek gis caaro yi ni ñuy sonnee si nawet bi mhm. ma ne damay jël ay kii crédit viré ko pour def des infrastructures de drainage la perception yi ma di que ne ko def c'est du ressort de la ville de Pikine mhm. alors tawee maire ville du du du yëkk du yëkk population yi lu ñuy daj mhm. man maa koy daj moo tax j'ai laissé passer mais je me dis que ne bu ma génnee ci chantier yi ma engagé mhm. damay lancer li nga xamante ni moom mooy campagne de pavage à Thiaroye-sur-Mer je suis en discussion très avancée ak des partenaires yu yëngatu ci domaine xanaa nag su ma nee damay def pavage mënumaa def pavage temps mu ànd ak système de drainage mhm, je vais réussir à le faire et donc pour dire aujourd'hui encore une fois que Thiaroye fi koy yóbbu en tout cas les populations populations sont satisfaites. simple de redresser la. di la sant bu baax a c'est un plaisir maître El Mamadou Ndiaye. merci beaucoup Mamadou Awa.